wallu di ñaan autorité yi nga xam ñom ñoo fi plus particulièrement le président de la république muy monsieur Macky Sall ñu lay wax watal Thiès population Thiès jot na sëkk ñu gestu leen war nañoo am marché poisson digne de son nom da lu toll ni Thiès mu nek deuxième ville du Sénégal mu nda fexé ba am marché bo xamni fruits et légumes moom moo fi ak poisson te waa jaaduna jaaduna nak na nag ci Thiès yi fi ñu toll ni mo am marché poisson digne de son nom marché moderne donc kon daal loolu moom moo nekkoon sunu jaxlé jaxlé ñu leen di wax da wax deug yalla ah ñu ngi dégg nak ñu né ah wa marché sam ñom ñoo baña juk wala ñom ñoo ma nanga ma nang wut nañu ben site de recasement bo xam moom lañ bëgg yobbu té site de recasement bo li ci tay suñu xel li ci tay suñu xel mom moy deful amul ben am préfet bindul dara lo xamni pour mo wane ñu ni site bi ni kat mën nañ fee tok ndax mën nañ fa dem ñaari fan ñetti fan ñi nga xam ñom ñoo mom site bi ñoo ñu lañu dañuy daal di juk té dañoo sonu ci jug leen toog leen fii jug len toog leen fii jug leen toog leen fii loolu dañ cee son li ñu bëgg moom mooy suñu daan ba attribuer nañu attribuer lo xam lu jaaru la te marché nak mënut ta ñak ci digg dëkk bi ñu wax len ko marché mënut ta ñak ci digg dëkk bi ndax ki nga xam ni moom moo am ñeenti téeméeram mu war a ndugg jënd jën jënd légume ñu ne ko passal téeméer nga dem fële ne dem jënd ji ko yaakaar naa loolu mënul nekk kon li ñu wax daal moom mooy ñun waa marché Sam li ñu bëgg moom mooy ñu aaral ñu bërëb bii nii nga xam moom la ñu nekk donte ni su fekkee daa am kenn ku moom sax su fekkee daa am kenn ku moom sax jàpp naa ne intérêt benn nit warta war a mën a weccoo fukki nit yi nga xam ñoom ñooy jëriñoo fii nii. man bi mu fi duggee rek sama yaram dafa daw. Euh, parce que yaakaar naa ne lii moom président sant ko kenn. lii ñi fi nekk yëpp dañu daan seen doole. mënuma concevoir ay jigéen ñu xam ne dañu jóg seen kër à heures du matin yëpp lu ñu am ngir njaboot bi la kër gi la parce que man tey sama yaram dafa daw euh, yaakaar naa benn cause doomu aadama warul yàqal ay milliers doomu aadama lii ñi de vraiment sama yaram daw na si man mu musuma fi teg tànk nii dem naa fu nekk mais lii moom sama yaram dafa daw tey li may wax rek mooy euh, li may wax la monsieur le maire nit bu la yàlla defee nga doon jiit fii dangay ngay jege askan bi kenn du forcine forcine baaxul wax naa ko léegi ba ma ñëw benn kilifa ma ne ko nañu toujours bañ def médecin après la mort Li nga xamné fi ça fait depuis 77 ba légui ni ngi donc on doit trouver une solution si yone sax buñu xoré les textes kii nga xamné amna titre foncier si yone moy dañ ko war def su ko échange Outel ko jox ko benen site bay fi ñi nga xamné manam dañu daal sen doolé. c'est vrai eh, bu may ñëw ma l'autorité m'a informé comme quoi que euh, tribunal génn na benn ordonnance d'expulsion comme quoi que le titre foncier appartient à la famille de Ana Faye

moom la ñuy bëgg mu defuñu ko bir ties nga xam population est dans de bonnes conditions. parce que fi bo xolé lu fi génn tay ci ay jours. c'est des centaines de millions. man à mon niveau na dem cette autorité mais xam leen ne incha rabbi man maay sen ambassadeur maay sen avocat.